taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bu baax sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Cheikh Fall Mboor ci jëf jëf fi indi te daa ko def naka jëkk te waxtu bu nekk it noonu lay noonu lay muy ab yëg yëg diggam ak Serigne Touba ñu koy sant bu baax di ko gërëm li ma ko wax léegi rek lépp lu ñuy defal Serigne Touba lu ne bu ngeen ci jiitoo rek suñu xel dal ci ñoo xam ne Serigne Touba nangu na ndax seen maam ku jariñ ci Serigne Touba ko yàlla jaarale ndax néew moom moo njëkk jébbalu waaye ku jariñ ci bi ci doxeen la ko yàlla jaarale kon loolu tawfeex la ju rëy firnde ji mooy néeg bi mu mujj si Serigne bi ci kaw suuf moo ko moo ko liggéeyal ci yaakaar naa moom ci mujj yónnee ndiggéen ci la bokk kon diggam ak sëriñ bi ak cofee kenn xamut fu mu seen seen waajur seen maam suñu Aliou Fall noonu la meloon njabootu ko suñ Tuubaa gépp loo ko seqaloon ñëpp fa daa ñëw Massa Fall ànd ak Cheikh Mouhamed Lamine Bara ci suñ Cheikh Fall sa waajur ma ñu agsee mu tëj ñu ci biir suñ baara yàkkamti lool ngir bëgg a dem mu daan ne nii la suñu àll daa def de ku fi ñëw ci ak kër suñu tubaay daal du demee ba dalay bëgg bañ nga dem cofeel googu nag mooy roogalaat rek ba ngi lay santaat bu baax ndax yéen soxlawul leen lii sax waaye seere rek la ndax la in shakartum la azidannakum yàlla suñu borom ci ofam sax daa bëgg ko sant yéen nag da ngeen di jëf di ko seere suñu tubaay ku leen bett wala mu fekk leen ci seen barab xam ne yéen a ngi ci sëñ bi ju kon nag dañ leen di ñaan bu baax ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla gàttandu leen sëñ Tuubaa gàttandu leen ci liggéey bi yoon bi ngeen dox ci Pacifique dox jëm ca ngir xeeñtu ne seen maam ji doon def te teggu leen seen tànk yàlla na leen ci yàlla te dara bañ leen dox ndax firnde yi lii may wax mooy ginnaaw bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa ci njëlbeenu Cheikh Mouhamadou Moustapha ba tubaab bi jaaxle ba jaaxle ñu mujj na ñun kat xamatuñ lu ñu def ndax yoon yaatu na te ñëpp ay kilifa lañ te ministre ta wax ak ñëpp kon faw ñu am benn koo xam ne moom la ñuy wax ne wala ñoom kuñ juboo ci seen biir jiital ko bañ wootee ci njaarim nag ba ñëpp daje Cheikh bi ci ñi mujj ñëw la bokk ba mu ne tëll seen Cheikh Mamadou Moustapha mu toog mu mu mu summi mbaxam mi summi daal di sukk ci suuf tubaab bi daal di wax ne la doon laaj jërut àggale kon junj baa ngi kon suñu Mamadou Moustapha mooy xëy na seen àdduna moom li def ci yoon bi kenn xaw ma taxaw sëñ Modou Moussa waxuma la mu defal sëñ bi waaye ni mu taxaw sëñ Modou Moussa ginnaaw sëñ bi ëmp na nit ñi sax ngir bëgg rek am cofeel ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Abdou Khadre daana nett ne fu mu ko mos a séenee ñeen da koy da koy yëkkat xëcc ko taf ko ci dënnam loolu ca lam ñëw laa ko déggee moom Cheikh ñeen da ko ci dënnam ne la ko bëgg a wut yaa bëgg bëgg gi Sëriñ Tuubaa moo roog laa ci yéen rek yëpp noonu lañ mel itam seen maam Sëriñ Modou Fadio xam ngeen bis Sëriñ Tuubaa njëkk a woote bis bi mu woote ñi njëkk a siñ sëñ bi ca la bokk sëñ Manoumbe mooy maam yi sëñ Mamour mi kon lii mooy cosaanu yoon wi kon loolu day dal la sam xel man foofu rek laay xoole waxtu wu ne la ña Sëñ Tuubaa àndaloon bi muy sos yoon wi loolu rek moom lañu war a jàpp muy wéy ndax garab la guñ jëmbat mu sax ba màgg ñun dara waruñu ci lu may di ko rek sooxat gi rek mooy sàmm ko nii kon nag yàlla nañu ci yàlla dimbali. amiin